Fall bu nu waxee mboolem njaboot gi nag taalibe ci lañ bokk ak xarit yi ak soppe yi tey jii ñu dellu siwaat ci pàkk bu sell bii pàkk bu laab bii pàkkub ngëneel bii di pàkkub maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin ngir sàkku ngërëmul yàlla te mu am fi rabbil alamin ndax lu di wuti te am sak am ca boo góorgóor la mën caa jot Fall yaaram ko joxe woon ndigal nag sa jëwriñ ji toog di maam Cheikh Fall ak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 waye la siru go xam bamuy dakk ginar ga rek moonu dal ci so jotaay bi da koy dakk mi wut fum laq fof foofu dugg ci lem mi mën ko noppal nga ma ndax mala jappal fof rek la la jëmee faleera fii rek la mu bëgg a ñëw ku nu fi woon wuyu si la kon déglu kaddu yi bayiko suñu sunu sëriñ sëriñ Cheikh Fall mom sëriñ ali Fall Mbawar xëccal ma fi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد لساني نار جراني سيف الأماني وسر الوعي سوف تبين فقط ما يقول أم خسي يهدي من الدواعي وقال أساس سرعي سنه كتاب وقد كتاب وقد كتاب وقد يا خير رب خير رب خير تحضر ما يسرع سر سر رب خير مثل سر الساعي أصلاة أهلي قلت أهلي بهدي إيالي نعم جندك جندك صلى الله salaamaaleykum wa rahmatulaahi taala wa barakaatu comme si ngeen liggéey ñëpp góor jigéen mag ndaw bi doom yi ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi ak taalibe yi yi ak wëlër yi xare i taxawaay ak seen i jàpp ci ba mel ni bu ko sëñ bi bëggee sama xol seet na ci sant naa leen dama leen ne fii ne saxaar ñay dagg biyee ca gaar bi ñëpp xaju ñu xaj ca bopp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 dama leen jërëjëf jara jëfal sëñ Tuubaa mooy ki jara jëfal ki am ci boo soxlaa jëf nag mooy Cheikh yi am solo Faliaram mu mel ni kon loolu ab soññee la ci jamono toll ñu bari war a dab dawaata leen dese war a jëmaat ci jëfe ndigal jëfe ndigal bàyyi tere ci ndaw jëfe ndigal bàyyi tere moom da koy wone ndax ci jëfe ndigal bàyyi moo indi tabaski maam sunu ibrahim mi tudd Xalilullaay di xaritub yàlla def soppeem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 ajar ne ne ko ajara ne ci bitti di dégg ne ah man de mag moom téeméer rek nangam ñaar ñaar téeméerat ak jigéen ju romb téeméerat indisposé no no nu muy mën a amee doom ñu ne ko loolu yow la jaaxal waaye yàlla jaaxalu yàlla dama leen tubaab bi la indisposé jaaxal waaye yàlla fu mu bëgg a poosé poosé ko dëgg la jërëjëf euh, kaddu yi am solo la yàlla moom dara jaaxalu ko fal yaaram ñu bëree bëri euh, di xalaat ne tabaski yi jamono dox bañ di ko ci kër Serigne Touba ñu bëggoon nga déet suwaatal ñu ci diggante tabaski ak ndigal li nga xam ne Seex Ibrahima loolu laa doon dem nii di mhm. dama ne nag ba mu ko ko rendiloo mhm. aju màkk gi fi ne ci lool la ware mhm. ndax fi ne ba mu ko ko rendiloo Ibrahima nangu loola Ismaïla ne ko na takki tànkam takki bëtam ba bu mu ko xool di ko yërëm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 ko lolé nak doom ju nangul bayam ak taalibe bu nangul serigne soxna so nangul borom kërëm la jërëjëf loolay ji macha allah daanaka du so rek fiñi ñuy jotaay bi waye Fall mu melni dañu bëggon ab soñé rek bu jëmat ci ndaw ñi ndax li ëpp ci ndaw ñi rek dañu riir wuti li ñuy wax résistance yi rawat na penc mi ñax TikTok té sab serigne mëno ci mom ñaar dërëm té lo am mu jar connexion lolé tamit ab soñé ngi ci résistance yi mom dama né di ci def luy sosu yoo ko gën TikTok bi ku ci dëkk da nga mësa a mu tak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 xar di ñeenti tànk béy di ñeenti tànk mm-hmm. wiite wi du sees mm-hmm. ganaar mi mu ci dugal sees boo ci tegee deux 18 18 safar 18 <laughs> safar <laughs> jërëjëf yàlla ñu yàlla defal yoolub 18 safar kon euh, mu mel ne bi nag ren mom mm-hmm. euh, xëy na li naa Serigne Touba tayam mm-hmm. dina gàcceel na démbam mm-hmm. waaye liggéey bi mom tay bi ma dikkee ñu jébbale liggéey bi euh, ci jëwriñ ñi maam Cheikh ak mboolem ñi mbokk Serigne Cheikh Fall Mbaor tey gis naa ñu def liggéey bu ràññikuwaat boo xam ne sama xol sedd na ci biir yéen kàddu nga leen dénk dénkaat la ko teel bi ñu dégg ah sant leen gërëm leen moom laa doon wax léegi ne la cant gi daj na ndax doom ji nangul baayam ak soxna su nangul borom këram ak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 xam na lan ñu làkk waaw ah, te sëñ Moussa Ka doon ndax jaan ju góor ak ju jigéen mat-mat yi hmm. ab lukkat xàmmee ne leen ci jadd yi te deme leen ko jaan ku ku lion naturel comme joox sa tool bàyyi day booy biñ ko yóbboo Dakar a ñuy paas dimanche di ko seet te boo doo xam gu góor nga fa bàyyi wala gu jigéen biñ ñëwee dakaar donc moo tax ma ne sëriñ bu fexe ba bañ taaxee la sëgg bi ñu saf jëmboo moom sa digg yàlla dootul leen jëmboo lu bari jërëjëf Fall Yaram xam-xamee xekk ma la waaye rafet na lool macha allah dañuy sàkku sans borom yàggal la fi lool tamay la wér ba kii nu mancé tàllal sëriñ bi ñaanal nu ñaanal ko ni mu yàgg fi lool tànn waajalaat ko rek waaw ah, neen yàgg ko te waajalaat may nu di ko fekk te di ko defee nu at mu jot nu mën a ko nu gën ni amiin Fall